fekkee soxna si fi bàyyi ko nag di sunu ndey di suñu sëriñ ah, nee na miinuñu ko woon lool de waaye dafa nekkoon ku am yitte ci nun am yitte ju réy lool ci nun bi ñuy mujjee wax ci téléphone sëriñ Abdou Mbacke bu Daarul Moxti moo ñëw ba fii seet si ko woo téléphone ni ko xaarama paas la soxna si waaye nee na li mu waxtaan ak moom bis boobu nee na tooyal na xolam nag ndax ci fàttali loolu dafa nekkoon ci ay jamono yu xawoon a xat xawoon a metti xawoon a tiis soxna si waxtaan ak ñun ne ba tuuru ci mu am lu mu ñaanoon nag ni ma bi sooba yàlla ñaan gi dana am taam na nee na moo tax ñu mën a toog fii tey noo ngi koy ziyaare Cheikh Mamadou Muntaxa bu baax nee di wax soxna siit mu jottalil nu sunu njaal Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Abdoul Khadir moom mi yor kàddug yoon wi waaye bokk ci kër gi itam nee na soxna wali nga jottali ko sunu njaal bu baax a baax a baax ak soxna moominatu nga xamante ni sunu nday la sunu xarit la noo ngi koy jottali njaalu soxna si bu baax a baax a baax dali nag kóllëre digganteem kër gi muy kóllëre goo xam ni gu dëgër la gu sax la nee du liggéeyam waaye waa kër gi ñoo ko may ci seen jëmm ñoo ko boole ci seen bopp ñoo ko yaatal rawatina nag sunu kilifa nun ñëpp muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou nga xam ni daf ko boole ci ay doomi boppam def ko sax taawam ci kër gi doonte magul ci kër gi kon ñi ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ñi fi teew ñëpp